ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bi leen nuyoo ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay di jiite ci nuyoo bi xalif général ku lu murit sëriñ Muntaxa Bachir di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ku ne xam na ne nag ñu ngi ci bis bu màgg muy bisu 18 safar màggalu Touba ñu doon wër nag doon def benn micro trottoir di jël ay entretien ñu seet si ki nga xamante ni si mooy sëñ Abo moom sëñ Moxtadaam sëñ Fàllu balaa ñuy xuuse rek dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi koy seetaan ginnaaw bi la nuyu bokki internet yi ñuy seetaan yëpp euh, di jiital ci nuyoo bi nag alxalifatul am Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fa yàlla yàggal suñu kanam ak mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp ñoo ngi nii mboolem murit yi di am mbégte mu réeré ci ñëw ngeen ñëw fii. jërëjëf sëñ bi ginnaaw bi présentation bi am solo boobu jàllee ñu dugg tuuti ci laaj bi rek xam naa du yàgg nag parce que entretien lay doon rek ñu gis ni ñu ngi ci bis bu màgg muy 18 safar naka ngeen koy waaje euh, ñu ngi koy wàcc ndax ñun lu dul bis bi ndax mooy bisub sëñ Touba suñu yaakaar àddina ak alaaxira moom it mu wane woon ne amul lu dul bis bii muy bis boo xam ne ñun jàpp nañ ne mboolem bis yi am ci àdduna bi bis bii moo gën a kawe ci ñun ndax sëñ Touba ñun amuñu lu dul moom loo xam ne bëgg na ko jàpp ko dañ ko a jàpp bëgg la te waxoon na it weeru tedd ñu nekk wax ne yaa xaayidal lii duna kas bin wa safar moo ko jëlee kas wa salaahin fi safar suñ borom jox na ma ci weeru safar loo xam ne mbóot moo xam ne eh, gaañantuwuma ci wala ma yëkkati ay ci ay ngànnaay wala ma ci wax lu mu wartu wax ci sama diggante doomu aadama yi suñ borom defal na ma it ci bis bu tedd bii nga xam ne ci laa koy sant yàlla loo xam ne ci àdduna jàpp na ne amul kenn ku mu ko defal ci kaw suuf loolu nag ay pas-pas la yoo xam ne lu mu jaayante woon diggante ak boromam la ba boromam ko ko tey xol yëpp dëgmalu ko xol yëpp dëgmalu sëñ Touba ngir ñëw Touba ngir màggalal sëriñ bi bu tedd bi na solo trop ginnaaw bu euh, safar. bis la boo xam ne sëñ bi ci la ci la ci la rañaane woon maanaam bis la boo xam ne wax na ne bis la boo xam ne ci ko suñ boroom joxee li lim bëgg lépp ndax bis bi muy jógee Mbacke Bari dafa wax ne ataytanil jamia duuna salabi wala taqudu sow la waxta talabi suñ boroom jox na ma lépp te dootu ko jël waaye muy bis boo xam ne bi mu fiy jógee tubaab bi di ko jël di ko yóbbu di ko sànq nga xam ne dañoo jële woon suñ tubaab Mbacke Bari yóbbu ko ndar jëlee ko ndar mba yóbbu ko Dakar premièrement bi nga xamee ne jëlee ko yóbbu ngir ngir liquider ko physiquement liquidation indi ko ndakaaru boole ko ak ak kaw nag tëj ko ci néeg boo xam ne ay rab ñoo ko nekk mu daj fa mettit woo xam ne jàpp naa ne ci àdduna amul ku daj mettit yu Sëñ Tuubaa daj ñu jëlee ko fii aussi yóbbu ko Gabon lu ne mu def lu ne def ko fa coono yu ne mu jàngantu ko fa ak tubaab bi daj fa yoo xam ne jàpp naa ne coono yooyu ñun coono yi Sëñ Tuubaa yooyu moom la ko suñ moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala fayee banneex ba tax ba tax ba tey ñun ñuy ñun ñuy bànneexoo ñuy bànneexoo loolu bis boobu nag nga xam ne ci la ko suñu borom tegoon natt yooyu mu xam ne moo wax ne suñu borom jox na ma jox na ma jox na ma ci bis bi loo xam ne joxu ko benn mbindeef ñu jëlee ko fi yóbbu ko mu dem bi mu demee dafa wax ne suñu borom dafa daf daan bind heure bu bis bi ñëwee day wax ne nattu yi ñu daan teg dañ koy ful di ko yokk waaye bi mu demee ba ñibbi suñu njaaram toog dir bu yàgg moo wax ne suñu borom xamal ne ma ne ma bis boobu yi nga xam ne mooy bisu diiru sa diiru safar bu dikkatee nattu yi dañ koy arrêté waaye léegi may la ñuy yokk dañuy ful may yi moo waral mu borom cant goo xam ne jàpp naa ne amul ku sant suñu borom ku sant yàlla ci cant gi suñ Tuubaa di cant suñu borom. na solo torop ñu lu màgg muy li fi jaaroon muy coronavirus. bi nga xamante ni si lëmbe na jamono. te lëmbe na àdduna. ñu ki nga xamante si mooy xalif général ku murit Serigne Mountakha digle yi nga xamante ni si moom la ci joxe. naka nga ko dundee sëñ Abdou. man dama cee boo xam ne jàpp naa ne bokkuma ak nit ñi yëg-yëg ndax man lu mën a xew rek ci jàngat kan mooy sëñ Tuubaa ak may yi nga xam ne suñ borom may na ko ko dafa am ko ñuy wax suñu Bay Jaxate waykat bu bu tedd bu mën a way sëñ Tuubaa daf ko mos wax ne ko ba yàlla yi ne bunt yàlla yi ñoo ko yor nga xëy génn fu kenn fooguloo ñu bokkoo ne yaa fi daan ñu toog dégloo déglu déglu dégguñ kuy baj bajee ko bañ nga far ñibbi sa kër yow sëñ Tuubaa ndaanaa nga ni ndaanaa ngi lu yàgg daan loolu mooy déglu nañ ba sonn kenn réaction wu ci suñ diggante ak suñ borom déglu nañ ba sonn aj makk amul déglu nañ ba son kenn wootewul bis déglu nañ ba sonn dara amul waaye Sëñ Tuubaa ñëw indiwaat li ñu ko yóbbu woon bureau ba ca Ndar ndax bureau ba ca Ndar 84 personnes la ñu woon waaye Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee tubaab bi jël ku njëkk ki nattu jël ñaareel bi nattu jël troisième bi nattu Sëñ Tuubaa dafa jug fi mu toog daan ne teg leen ma ci teg leen ma ci googu yi nag moo moo aar mbooleem koo xam ne mooy ab jaam tey di dund fii ci senegal nekk jullit teg leen ma ci googu yi moo waraloon moom moo dellusiwaat jàpp naa ne ci 2020 bi ndax Sénégal tolloon na foo xam ne defe naa dëgg dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla demoon nañ ba ba nodd nu ci nga xam ne li liñ ñu am suñu diggante ak suñu borom daaw ñu ko matale ngir lan ngir fe ngir lagal ragal loo xam ne nattu suñu borom la te léegi ñu bàyyi xel duñ bàyyi xel yu mel noonu ndax day mel ne suñu borom dafa ñu bëgg a rey te amul fu mu ko jaarale waaye nag suñ tubaab dafa dellusiwaat nit ñi wala ne leen ñun amuñu loolu suñ borom yàlla la ñuy di yàlla la ñuy dundal ndax moo waxoon ne maa li siwaakal yow ma faltakul liya fii kulli shay'in abadan ya rabbiya nafsi wa ahli wa jamia maali laka wa diatin fa kammil haali aw ma kenn ku dul sama borom ngal la na ngay nekk di ma ñeel ci bépp mbir ba faw sama bakkan ak sama alal ak sama njoñ ak sama mboolem sama mboolem njaboot jeexal naa la ko ngal la na nga matal samay mbir na nga def sama mboolem dund gi ñeel la yow yàlla ak muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu doxee ci noo xam ne kenn doxu ko ci daj ci coono boo xam ne coono boobu ba tey ci la ñuy bànneexoo Sëñ Tuubaa li muy neex neex neex Sëñ Tuubaa mosu ko mosu ko mosu ko gis Sëñ Tuubaa mosu tëdd ci néeg bu am climatiseur Sëñ Tuubaa mosu mosu dugg ci oto bu rafet Sëñ Tuubaa mosu lekk ñam mu neex fur li muy neex neex Sëñ Tuubaa mosu ko mosu ko mosu ko mosu ko mosu ko dund mosu dund ñun lii ñuy dund Sëñ Tuubaa mosu cee dund dara te wallaahi laa lépp moo ko liggéey bu dul woon bu dul woon ak moom ñun lambay dara ñaaw ci ñun ñu xam lan la ñu doon mën nañoo nekk ay jaam yoo xam ne tubaab bi dañ ñuy not ñu leen raxasal ñu leen ñu leen defal loo xam ne jàpp naa ne ab jaam waru ko defal ab tubaab waaye suñ tubaab indi loolu lépp xoolal xoolal xam ne moo liggéeyee loolu boromam ba am ndam lii mu am tey war ñun Sénégal war nañoo xam kan mooy Sëñ Tuubaa te dañ ko war a xam tey dafa jot tey ñu xam kan mooy Sëñ Tuubaa xoolal li mu indiwaat makka gee ñuy roy xoolal la xew tey Sëñ Tuubaa ñëwaat wane ne li li ñuy dund li ñuy li ñuy dundalee suñ borom du dara lu dul wootee tawasul ci suñ borom jàng alxuraan ñaan suñ borom li fi am lépp mu jële ko fi Cheikh Abdou Mountakha doxee ci noo xam ne ñëpp gis nañ ne tey jii mooy nam ma dalul suuf sëñ bi dafa sëñ bi dafa digle digle it mooy dafa dafa wane dafa wane yoon ndax jamono dafay toll foo xam dañuy laaj ku mel ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu wane yoon wane na ne it mooy espoir tey ci Sénégal wane na ne it mooy yaakaar ji nga xam ne tey jii moom la Sénégal doon xencu te am nañ ko muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi takk masque jotee waxul ne na ngeen takk ay masque waaye daf koo takk wane boppam wane ne nii ma ko takkee nii ngeen ko war man mii bokk naa ci comité bokk naa ci comité d'organisation nga xam ne keroog bi ñuy dem di ko tegtal affiche nga xam ne def nañ ko ngir wane nit ñi nan lañ war a mën a takkee daf ci daf ciy ànd ak mbégte mbégte moo xam ne jàpp naa ne mosuñoo gis mun Muntaxa am mbégte mu réy noonu ndax ndigal li nga xam ne joxe na ko te ni mu ko joxe woon jàpp naa ne murid yi ñu ngi koy jëfee noonu ndax ñun amuñu loolu Sëñ Muntaxa ku ne jaar na fi digal ñu waaye ñun dañoo jàpp ndigal lu ñu woon mooy lu ñu lu ñu waaye mën a digal lu dul ndigalul Sëñ Tuubaa mën faaliwul loolu ndax laa tafalu shay'an bi xayri idni fal idnu sartun fi xabaru saani kon daal ñi ngi ñaan Cheikh Mountakha mu yàgg fi loolu te